gi ak réer te mooy ak ndof ndax yonent bi bam génne di dogala di Abu Sufyaan ca njëg ma ca Shaam Abu Sufyaan yónnee ca waa Quraysh Makka na leen ñëw leen wallu wallu ma ndax yonent baa ngi may karsi ca yonent bi ci ndigalul yàlla la ko doon dogale jee Abu Sufyaan ba waa Quraysh tàmbalee di waaj ngir génn Abu Sufyaan dafi pexe ba raw ñoom ñëpp nag ñu ne ginnaaw njëgg mee ñu taxaw na génn te njëgg mi raw na nañ toog abu jahlin ne mukk dana dem ba ca barab mu puukare fa bàkku fa nag kon lakinnahu jarrahu nisfu smihi liradan fa xabu kulli musamman min sumaahu sama ne genn wàllu turam woowu rek moo ko yóbbee ca alkande jakotal te mooy ñoom ñëpp moo kilifay màkk yi ñu ci bari ñu rey leen sànni leen ca kamb ga mu ne du moom dong nag kenn ku ne sa saw tur da lay da nga cay jële ab cër kon moom genn wàllu turam bii moom it rafet nañ jortu ci ne al ahad te mooy al ahad abdul ahad ko waxtaanee nelaw mu jàngalaat ñu taxit it daañu rafet jortu ci lañu soxla te ko ci am noo ko ci ñaanal tawfiq bu noppee itam sëriñ ibrahima mu sëriñ moustapha xabsa dana ci dana ci dolli dana ci dolli incha allah bu moom it sëriñ xalil bu noppee itam lu ñu waxtuy may rek kilifa yi fi teew ñoom itam ñu joxleen leen ay kàddu ñu am luñ ci dolli kon sëriñ Abdou Lahad bismillah الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi asalaamaaleykum rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam bu sell di ci jiital ki nga xam ni mooy a cheikh Muhammadul Muntaqa moom mi nga xam ni mooy kilifa ci penc mi njabootam taalibe ñi fi dëkk ñépp nuyoo boo xam ni nuyoo bu sell la di am mbégte daje ki yéen ci jataay bu mel nii jataay boo xam ni jataayu xam-xam la jataayu fàttalante la maanaam jataayu mu toujours damay wax ni péncum sëriñ Touba ku fa toog ni da wax ci xam-xam na jàpp ni da ngay fàttalante ña pénc ma rek ndax moom ci boppam dafa raw ñépp ci xam-xam ba mu rawee ñépp it ba tey ña ca gannaawam ci njabootam ak ñamu yar ñoom it dañoo wéy raw ñépp ba tey kon bu dut woon ni dañu yaakaar ni bu ñu toogee ci pénc moo xam ni daa bokk ci ay péncam di wax ci xam ku nekk sañ nga am fit ci péncum sëñ Tuubaa nga jàng fa benn aaya wala benn xadiis waaye bu dul woon loolu xam nañu ni fii pénc mi pénc yi mel nii tey askanoo ci sëriñ Tuubaa ku fay wax xam-xam wala nga toog fa di fa jaay xam-xam danga mel ni ku dem xa ku dem xaybara cay jamono di jonganteeg ñoom ci bari tàndarma xasaan waxoon na ni wa in alladi yuhdi qasaidan naxwana ka sabdin tamran ila ahli xaybara ndax xasaan ubnu saabit di waykat ci waykati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko mu xeñoon lool ci way dolli ceeg ñaan yu ko yonent bi sallallahu alayhi ñaanaloon ci way yooya ca ba muy joŋanteeg Zabarqaan ibnu Badr ba yàlla ba yonent bi naan ko allahuma ayyidhu bi ruuxil qudus yàlla dooleele ko ruuxul qudus muy jibil ngir mu koy ilham di ko sax la mu war a wax demoon na it nag ba gis boppam nag xam ni dëgg-dëgg ñaan googu nangu na ci moom ba ba ku ñu ko ku ñu sa teg ci kanam ci jongante ci way rek jong na ci lim la ndamoo sax lisaani saarimun laa ayba wa baxri laa tukaddiruhu dilaaw loolu daan na ko wax ci jongante surtout muy hijaa abu sufyaan ma doon xarab yonent bi sallallahu alayhi kon Touba ak péej yi nga xam xam ak tarbiyu ak taalibe mel na fa noo xam ni ku fi wax surtout ci xam-xam war ngaa xam ni ci musaakara nga nekk nekkuloo ci njàngale kon loolu ngërëm gi ñu yaakaar ni danañ ci amuk ngërëmam ndax dundam lépp ci xam-xam la ko defee woon kon ni ko sëñ noo waxee léegi ak sëñ Abou kon yaakaar nañu ni baat bu ñu fi wax dama aju ci fi tawxid Cheikh Ahmad Bamba njàngat ci li nga xam ni mooy tawxiidu Cheikh Ahmad Bamba na mu wéetale woon boromam njàngat la moo xam ni njàngat mu yaatu la jenn jataay kenn mënu ko cee def mu jox ko àqam waaye nag maa laa yudraku kulluhu laa yudraku julluhu mbir moo xam ni wóor na la ni munoo munoo koo motale bu mu tee nga jël ci la nga ca mën def rek def ko ca te sëriñ Tuubaa wàllu pas-pasam ci yàlla pas-pasam ci yonent bi pas-pasam ci alquran pas-pasam ci bis ak ci malaaka yi ak ci dogali sunu boroom lu bees amu ci ndax mooy ki nga xam ni sosut dara ci diine indiwu fi lenn lu bees alquran la dund sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la dund kese ci la yem waaye li bees ci moom mooy dundin gi na mu doon dunde yooyu lu ñu ñu sas bu dee benn la mu def ci junni loo xam ni sax mu baax na ci ñun mu bàyyi lépp fan loolu mooy extraordinaire ci moom loolu mooy li bees ci moom lépp loo xam ni ndigal la lu jóge suñu borom dunde na ko anami ndundin koo xam ni kenn melu ci ni moom lépp loo xam ni tere suñu boroom la yaa xam day dugg ci baabul xaraam wala baabul makruux wala baabul mu baax sax nag xam ni du sax tere waaye bu fekk ni bakkan am na ci cër rek sëñ bi lépp da koo bàyyi kon yooyu mooy li bees ci moom loolu yooyu ñooy extraordinaire ci moom te moom dundam comme ni ñu ko junje léegi lépp wéetal sunu borom la ak wéetal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi dañ koy wéetal wéetal yàlla ci yi nga xam ni yàllaa ko jagoo loolu ci pas-pas la mooy sax fondement wu pas-pas waaye it tawxiidu rasuli sallallahu alayhi wa sallam fil mutaabaa wéetal yonent bi ci topp doonu topp kenn ku yonent kon sëñ Tuubaa dafa dund ñaari tawxiid yooyu yépp ci dund goo xam ni dana jafe wala dana jomb sax nga wutal ko ci kem kon bu ñu bëggee dugg ci thème bi dinañu wax rekk ni tawxiid mooy wéetal yàlla dafa bokk ci yi nga xam ni ponki gëm yàlla bokk ci ponki lislaam jébbal sa bopp yàlla bu dee gëm yàlla jibril ba mu ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wa soppikub nit dafa am yu mu laajoon yonent bi bokk na ci axbir niimal iman wax ma luy ngëm yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko gëm yàlla malaaka yeeg yonent yeeg téere yeeg bis penc ak dogal yi mu laaj ko ne ko xibaar ma luy lislaam ba mu koy xibaar lislaam la mu jëkkewaat mooy la tënk loola lépp la imaan lépp loola la ko njëkk a wax ci lislaam te mooy seede ne amul buur bu ñu war a jaamu bu dul yàlla man muhammad ndawal yàlla la kon foofu nga gis eh, ni tawxiid ga ñëwaat na nekk tawxiid nag yàlla yonent bu mu mës a yónni tawxiid la la boo leen wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuuxi ilayhi annahu laa ilaha illa ana faabudun yonent bu ma mës yónni dama wax moom mooy feddalil ko ni man rek lañu war a jàmm amul buur bu ñu war a jaamu ku dul man yàlla yonent yépp loolu moo nekkoon seen asaasu seen mission ndax xam nag yonent bu ne say problème yi nga xam ni sa xeet moom lañ doon gën a dund ci ay dérapage ci jàdd yoon yonent yooyu ñëw nañu mu aalaja problème yooyu bu dee yonent yàlla Shuayb wàllu njënd ak njaay bu dee yonent yàlla Muusa wàllu njibar bu dee yonent yàlla Isa wàllu médecine lu ci ne rekk yonent yooyu ba ñu ñëwee dañu régler tawxiid ba pare dal di cay teg li nga xam ni mooy problème majeur bi nekkoon ci réew yañ daan dund ba ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñ boroom jox ko tawxiid anam ga gën a mate jox ko xeetu ci anam ga mu gën a mate comme mission moom dafay gunge àdduna ba keroog àdduna di tukki yonent yépp moo ci gën a yaatu mission moo tax xaatabanteem yaa ayyuhan naasu rek la daan wax wuuteeg yonent yee jiitu yaa xaw mi lañ daan wax ak yaa bani israil xanaa yonent yàlla daawuda mi ma sa wax yaa ayyuhan naasu la taxoon mu wax ko du woon jottali ndigal waaye wane minnatullahi alayhi ala saairi naas yaa ayyuhan naasu ullim naa ay ci des ñëpp yaa ayyuhan naas yaa yaa xaw lañ daan wax yaa bani yonent bi nag yaa ayyuhan naasu inni rasulullah ilaykum jamian la la daa xaatabanteeg nit ñi moo tax yàlla jox ko tawxid ba gën a mat ci xeeti ci tawxid yi jox ko it iimaan goo xam ni moo gën a mat ci imaan yi ba mu ñëwee moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallama def na lu toll ci fukki at ba dara topp ca jàngalewul julli jàngalewul woor jàngalewul yeneen ci yi nga xam ni furoo lañu ci diine waaye tawxid rek la doon jàngale ngir tawxid mën a sax ci xol yi ndax wéetal yàlla bu xas bu bu saxee ci xol yi ndigal ya doog a ñëw ndigal ya xol bi da koy nangu te day yomb ci moom ndax tawxid mooy tax nga ragal yàlla bu ndigal ñëwee ragal googaay tax ndigal la woyof ci yow wa innaha la illa ala julli la wax te ay minute a koy def waaye ragal yàlla bu nekkul ci nit ki julli mooy doon deuxième ñaareelu soxla du ko def priorité saa yu jotee waaye koo xam ne ragal yàlla jiitu na ci yow bu julli ñëwee rek da nga xam ni lii mooy mooy priorité fi mu toll nii moo gën a yell ci lu ma mën a def ci waxtu wi kon yonent bi jàngale tawxiid ci fukki at lu teg yoo xam ni dara raxu ko ba mu jógee ci njàngalem tawxid ba julli ñëw koor natt azaka haj màkkaak yeneen yi nga xam ne ay tashriaat yépp ñëw waaye teewul mu ngi jàngale yooyu continuer di jàngale tawxid ba tey ba ni mu fi jógee kon tawxid daanaka mooy eh, rasul amri diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di lislaam tawxid mooy bopp ba comme ni ko sëñ bi junje léegi jëf ju mu doon bu fekkee ni imaan jiituwu ci yàlla xoolu ko yaa xam infaaq la yaa xam ay ndimbal la yaa xam xeeti mbaax yépp yi doom aadama di def bu fekkee ni tawxiid jiituwu ko imaan jiituwu ko bu boobaa loolu nga def amalu la benn njariñ ba adi ibnu xaatim laajee yonent bi ne ko sama baay day ñépp xam nañ ko ci tabeem ba araab yi ak tabeem ñu def ko misaal ñuy léeboo tabeem ndax tabeem googu dana ko jariñ bis pénc yonent bi da ko tontu ne ko du ko jariñ bis pénc ndax musul wax laa ilaha illallah ci dundam kon tabeem googu du ko jariñ kon iman mooy fondement bi yonent bi sallallahu alayhi wa ba mu fi jógee saxaaba yi wéy fa yonent bi tegoon tànkam di jàngale lislaam da ca jiital tawxid di ci jiital al iman jiital ga ñu ko doon jiital tax na nit ñi daa njëkk a ñëw di dugg ci ci lislaam ku ci mës a ñëwit tawxid lañ lay jàngal lii firndeel loolu yonent bi ci mujj dundam ba mu yónni mu Muaaz ci Yaman bokk na la mu ko jëkk a dénk woo leen ci ñu gëm ba pare innaka tati qawman min ahli alkitab faltakun awala ma tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah fa in hum ataacuuka lidalika fa axbiruhum an allaha farada alayhim xamsa salawaatin ila axiri alxadis yaa ngi dem fekki ñoo xam ne ahlul kitaab lañ na nga leen woo jëkk ci ñu seede ni yàlla rek lañ war a jaam ci ñu seede ni man yàllaa ma yónni bu ñu nangoo ba pare nag nga xibaar leen nii nag gannaaw ba ngeen nangoo julli juróom war na leen asaka dal di ñëw ak ya ci des yépp dal ñëw kon tawxiid ngëm yàlla mooy njëlbeenu fondement wu ci lislaam eh, yonent bi nag ba mu fi jógee saxaaba yi ci seen mujjug jamono am yu commencé di xew ci lislaam ndax firaq yi pas-pas yi nga xam ne dafay wuuteeg pas-pas ba yonent bi jàngale mu ngi commencé di juddu ci jamono yi yu mujj yi ci fekk am na ay saxaaba yi mujjee faatu fekke nañ ko ku deme ne Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab moom 73 juróom-ñaar fukki at ak ñett faatu waaye xew-xew yooyu ñiy weddi xadar ak jabriye ak yooyu ba ñuy xew booba mi ngi dund moom yàqu-yàqu yi commencé dugg ci lislaam eh, xawaadi ji am ci lislaam ci jamonoy ali tashayu am ci lislaam ci jamonoy ali yooyu yépp ku ne ci ñooña indaale sa pas-pas yoo xam ni da ko jéggaani ca la nga njëkkoon a nekk avant ngay dugg ci lislaam ndax nit ki bu miinee dara pour mu mu set ci wécc tajarru ci tajarrudan nihaiyan yenn saay mu xaw a jafe nag pas-pas ya ñu gëmoon ca ba ñuy nekk ay majuus ñii pas-pas ya ñu gëmoon ca ba ñuy ba ñu jàngee xam-xamu grec yi yunaan yi pas-pas yooyu dañoo ñëw duggaale ak moom ci lislaam loola commencé indi ay mun atafaat ay dérapage yoo xam ni yu doy waar la ci biir lislaam donte taxu ko woon fés nag lool waaye bi saxaaba yi jeexee ba taabi'una yi ñëw pas-pas yooyu commencé di tasaaroo ndax dem nañu ba am sañ-sañu taxawal ay daara yoo xam ni seen pas-pas yooyu lañ fay jàngale loola tax na nag xeet wi commencé di séddaliku ci wàllu pas-pas ba tax nag ñi nga xam ni ñoo nekkoon di des ci pas-pas bi yonent bi daan jàngale ñooñu ñu tudde leen ahlu sunna jamaa kon ahlu sunna wal jamaa tur woowu fesul lu dul bi nga xam ni am nañu am ci lislaam di askanoo ci lislaam di fas ay pas-pas yoo xam ni wuute naag pas-pas woo fi yonent bi indi woon moo tax pour ràññaat le ñee ak ñii nga xam ni ñoo fas la yonent bi indi woon moo tax ñu ne ñii ahlu sunna jamaa ña nga xam ni dañoo weddi qadar ñu tudd leen alqadariya ña nga xam ni dañoo weddi qudratullaahi ñu tuddee leen aljabri eh, ña nga xam ne dañoo weddi eh, xudratullaahi weddi jëf ne amul njariñ pas-pas rek doy na ñu tudde ñooñu al ñi nga xam ni dañoo weddi ne jëf jaam bi ci boppam amul amul choix al abdu musayyar dañu dañoo mel ni kuy dañuy remote control eh, télécommande di ko commandé jaam bi daal amul ixtiyaar ca la muy def sañu ta def sañu ta bañ dañ koy guider oto guide la ñafasoon loolu ñoom lañu daan wax aljabriya ñi nga xam ni dañu weddi woon melokaan yi yàlla melal boppam ci alquran ñu tudde leen almutazila ña nga xam ni dañu jàpp ni ku def bàkkaar bu mag yéefar nga te bu bis péncaa takunu xaalidan mu xaladan fi naar mu doon pas-pasu xawaari ji kon yooye yépp ñu ngi commencé di am ci mujj dundu saxaaba yi jàpp ci jamonoy taabiin yi ak atbaawu taabiin looloo tax ahlu sunna wal jamaa ràññee seen bopp walis ñooñu pour ñu xàmmee leen ni ñoom ñii kat seen pas-pas mooy pas-pas bi nga xam ni moo tegu ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa te sunna bu ñu la ko waxee mooy yoon wa yonent bi jaaroon min macharin sannat lahum abaa'uhum wa li kulli qawmin sunnatun wa imaamuha comme na ko borom mu àllaqa ba waxee eh, dañu bokk ci nit ñoo xam ni seeni wayjur seeni baay xottil nañ leen aw yoon te nag giir wu ne nag am nañu yoon wuñ leen xottil ca la ñuy jaar kon sunna la muy tekki mooy yoon kon yoon wa nga xam ni moom la yonent bi jaaroon ña ca tegu ñooñu lañ naan ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa nag dëgg la jamono dox na ba am ñu bari ñu koy xëccoo wa kullun yaddaci waslan bi layla wa layla laa tuqiru lahum bi daak eh, waaye teewul ngir boroom xam-xam yi seenu yaatal rek am nay wuute yu sew yoo xam ni dox na ci diggante yenn ahlu sunna yi ñoom seen biir waaye seenuk yaatal ak seenuk maandute tax daawuñu génneente ci biir ahlu sunna wal loola tax na boo demee ci borom xam-xam yu njëkk yal ku demee ne Abdul Qahir al Baghdadi nga dem ci Abul Hasan al Ash'ari ci maqalaatul islaamiyin wa ixtilaaful musalliin nga dem ci Abdul Karim Shahstani ci al milal wan nihal ku mel ni Ibnu Hazm ci al fisal fil milal wan nihal da nga gis téere yooyu bu ñu yeggee ci ahlu sunna wal jamaa dañ leen di séddale lu baree baree bari ñetti xaaj benn xaaj bi te mooy jumhuurul muslimin ca jamono yépp ñooña mooy al ashaira di topp abul xasan al ashari xam ni mu ngi faatu woon atub ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci gàddaay Yonent bi sallallahu e, am na ñeneen ñu doon tuddee al maturidiya ñoom it ci biir ahlu sunna lañu bokk boo demee ci xanafiya yi ñu bare bari ci ngiram ci pas-pas la ñu yaskanoo e, abu mansour al maturidi nga xam ni mooy njiitu ngir woowu ak ñañu naan ahlul xadiis ahlul xadiis ñii nee naa ñii naan leen al athariya ñeneen ñi naan leen al xanaabila kon ñett yii lañu daan dugal ci keppaaru ahlu sunna wal jamaa waaye teewul it ñu xam ni ñoom ci seen biir daan nañu raddante ci ay masaa'il waaye taxut woon ñu dàqante ci biir mbaar mi di mbaaru ahlu sunna wal waaye nag ñu xam ni jumhurul ulama Eh, li ëpp ci jullit ñi depuis booba ba tey ay achaira lañu eh, muy madhab bi nga xam ni ka ko wesaare tasaare ko lool mooy abul xasan al ashari mi ñu doon tudd léegi eh, cheikh ahmad bamba doonoon koo xam ni ci al madhabul ashari ca la wékkoon pas-pasam bind ci ay téere yoo xam ni téere yu bari la wax ko it ci ay téereem yoo xam ni sax duñu ay téere yu aqiida bokk na ci téere yi gën a rëy yaa nga xam ne da koo bind ci pas-pas booba di pas-pasu ahlu sunna wal jamaa mawaahibul quddus ndax mawaahibul quddus e, aslu téere bi cosaanu téere bi sanusi moo ko bindoon samaytuhu mawaahibal quddusi fi nazmi nasri cheikhina sanusi moo ko bindoon mu doon boroom xam-xam bu mag doon dund ci alxarnu taasi al te doonoon koo xam ni wax nañ ni sax ci jamonoom xarnu boobu moo moo moo ca nekkoon al mujaddid bindoon téere bu mu tuddee woon umul barahin yenn saa yi ñu koy tudde al aqida sufra bindaat beneen téere tudde ko al aqidatul wusta bindaat beneen téere tudde ko al aqidatul kubra yii yépp ci pas-pasu ahlu sunna wal jamaa la ko tënk sëñ bi nag e, jëloon umul baraahin dal di koy nazmu mu doon mawaahibul quddus waaye dolli ci yu baree baree bari yoo xam ni nekkut sax ci mawaahibu ci ci ci ci e, umul baraahin bind ci it faydul xaniyil mughni xam ni pas-pas la fay wane muy pas-pasu ahli sunna wal jamaa di pas-pasu abul xasan al ashari dellu ci njëlbeenu tazawudu sigaar tazawudu shubbaan yooyu yépp mu jàngale fa la nga xam ni mooy pas-pasu ahlu sunna wal jamaa gi nga xam ni mi ngi ko wékk ci madhab abil xasan al ashari kon bu fekkee ni dañ ne dañuy def ay njàngat ci pas-pasu sëñ bi dama yaakaar ni lañu gën a yittewoo doonut la mu def ci mawaahibul quddus la mu ca bind saxal ko ca doonut it la mu saxal ci tazawudu sixaar ak tazawudu shubaan ak faydul ganiyil mughni ndax yooyu yépp tawxiid la pas-pas la bu ahlu sunna wal jamaa bu abul xasan al ashari waaye tawxiid la bu goo xam ni pas-pas la boo xam ni pas-pas navari tawxiidu navari aw aqida navariya muhaadara bi nag li ma ci gën a soxal mooy aljaanib at tatbiqi ci pas-pasu sëñ bi ndax loolu euh, dama yaakaar ni toog di wax li sëñ bi wax ci mawaahibul quddus ak ci téereem yooye ñu tudd day xaw a niroog taxsiilul xaasil defe naa daara yépp jàng nañ xam nañ ya xam ni moom la téere yooyu làmboo di pas-pasu ahlil sunna wal nga xam ni laa yasawu ahadan an yajhalo ñépp ko war a xam te penc mi ñépp xam nañ ko insha allah eh, kon jaanib bi nga xam ni ci la sëñ bi ràññeekoo ci wàllu pas te mooy aljaanib ak tatbiqi ci waxtaan wi incha allah ci lañu bëgg a joyal eh, suñu waxtaan ndax lële navari la waaye moom naka la ko doon dunde moom sëñ bi eh, ndax it eh, dama koy wax toujours bu ma ko doon takraar téeméeri yoon par bis sax du ma du ma am malal ci wax ji mooy ni dafa am ay awju yoo xam ni sëñ bi da ko niroog yonent bi ci wootinam ci aw jëf yu baree bare bare euh, loola tax na may wax ni sëñ bi indiwu fi lu bees ndax yonent bi rekk la koppi ndax gëm nañu ni na mu doon wéetale suñu boroom ci pas-pas ca ya nga xam ni suñu boroom a ko yelloo mu jagleel ko ko naka noonu noonu la doon wéetale yonent bi sallallahu alayhi wa ci topp ko amut woon beneen royuwaay bu dul yonent bi sallallahu alayhi wa Eh, kon bu ñu xoolee yonent bi fa mu tegoon tànkam sëñ bi na mu ca tege tànkam danañu gis ni yonent bi wooteem wax nañu sànq ni yonent yi bu ñu daan woote seeni ñoñ lañ daan woo ak seeni giir yaa bani israel ak yaa mi moom mu ñëw ne yaa ayyuhan naasu inni rasulullah ilaykum jamia yonent yi seeni diine dëgg la sax nag yàlla lislaam la ko tudde woon waaye ba ñu fi jógee tur ya daa soppeeku seeni nit soppi ko tudde ko yeneen yoo xam ni bokkul ak ga yàlla tudde woon ndax yàlla nee na benn diine la am muy islaam xawaari ya islaam la ñu woon ba ñu nango jibarkatu muusa ya yu yu firawna ya l'islaam la ñu déclaré woon na ci lañu ñu bokk yonent yàlla ibrahima ak yaqub seeni doom it ba ñuy tàggoog ñoom l'islaam lañu leen feddalil ñoom it moom la ñu reconnaître ne ci la ñuy ci la ñuy dund kon yàlla l'islaam rek la ma saam ci diine inna dina inda laay lislaam tekkiwul ne moom la reconnaître léegi la muy tekki mooy ni moom la ma sa ci diine amul jeneen diine juma ma sa tudd nenn nu dul lislaam ñii nga xam ni nag ñooy yahuud yi lislaam galeen yàlla joxoon jox ko Muusa ba fi Muusa jóge soppi nañ ko tudde ko seenu maam di taw bi yonent yàlla Yaaqub kon nga gis diina ja na mu soppe ko ba mu mujje doon alam ci ñoom moo tax yàlla bu bu bu leen bëggee ràññaat leen tur wa ñu tuddee seen bopp ba ràññeekoo ca moom la leen di tudde rek ci alquran nasaaraa yi tamit kadalik dëkk ba isaa yaroo def fa fukki at teg ca ndawam ñu tuddee ko nasira ñu naan ko dëkk boobu it la ñu mujj seen diine ja mooy an nasaara ba ñu mujj leen caa askane comme dem nañu ba ñu ràññee leen ca nag ah yàlla comme moom lañu leen xame yàlla it bu leen di tudd rek noonu lañ leen di noonu la leen di tuddal nañu tudde seen bopp ndax ci lañ leen di ràññee waaye yonent bi sallallahu alayhi yàlla jox ko diine joo xam ni askanam feeñu ci ay maamam feeñu feeñuñu ci dëkk ba mu dëkk feeñu ci waaye képp kuy doomu aadama xaj nga ci biir mooy islaam jébbal sa bopp yàlla bu ñu xoolee sëñ bi teg gi mu tegoon tànkam cafa fa yonent bi tegoon tànkam bay niroo léegi yonent bi ci lépp gis nañu tarixa yi ñu fi xam ak yi ñu xamut yépp rek ci ay nit lañuy ñuy askano askanoo ci askanu borom tarixa ba dasuuqiyaak alxaskafiyaak naqshabandi badawiya wala ñu askanoo ca dëkk ba waaj a dëkk a chazaliya chaza la ab village la waaye sëñ bi moom wàcc fi mbàkke gi wàcc fi bawal wàcc fi lépp lu bokk ci moom ne muridullah pour ñépp xaj nga xool lii na mu niroog lële wooteem moom na mu niroog woote yonent bi sallallahu ngir ni rek ñépp dañu ci mën a dugg xaj yahud yi seeni diine seen diine boo bokkul ci al asbaat yadi fukk ak ñaar laa yu raxibuna bi ka ci diine bi mën nga caa nekk nag ñu soxla la def lab xaadim di la di la di la di la exploité comme nañu defoon yahudu falasha yooyu jóge woon Éthiopie ndax booba soxla nañ ko leen di baleel seen i mbedd ak yooyu ndax yahudi ñoom ñi ne ñoo bokk même jombale nañ ko seen bopp ñu fexe ba créer créer ñu askan ne ay yahud nañu fexe ba ba jal bu leen ñoom ñëpp ñu dem Israël mooy yahud yu ñuul yooyu ngay jóge Éthiopie ñoom kon seen diine dañ ko kode yonent yàlla Isaa sax nag ba mu doon wax nasraan yi rek la daan waxal boo demee ci seen nouveau testament bi mi ngi naan lam ubaas illa ila xiraafi bani israila daalla dina yàlla ci xari bani israil yu sànku yi rek la ko yónni moom yonent yàlla Isaa yonent bi nag diineem mu ñëw yàlla jox ko diine joo xam ni daa woo ñépp dugg ci udxulu fi silmi kaafa ba pare nag teg ci ni taalaw ila kalimatin sawain baynana wa na ñëw leen wuyuma ci laa ilaha illa allah bu ngeen ma ci wuyoo rek ma yem ci ak yéen bis ba ngeen ma ci wuyoo sëñ Tuubaa it lii nga xam ni moom la woote ñépp ci yem amu ci woon xàjj seen xàmmewu ci woon askan wa nga bokk xàmmewu ci woon gox ba nga dëkk xàmmewu ci woon ñooñe ñuy am tur yu ñu leen di tudde jàpp nii dañoo xeebu moom ñépp la yemale woon nga gis diggante mag sëñ Mahmoud Mbegere eh, na na na mu defoon ak moom ca ba mu ko indilee kaamil ba jël doomam may ko kaamil ba ci boppam mu jox ko Cheikh Mouhamed Lamine Baara ne ko ëw ko kooku ëw ko indi kaamil bi mu ne ko ndaxam sax de yow lii ñu tax ñu naan la wuude moom la moom Lamine Baara mi def tey moom it li tax ñu naan ko sëriñ moom nga def tey muy bind kaamil kon kooku amul woon xaaj ak seen kon fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam tegoon tànkam foofa la teg tànkam man mii toog sax di wax nag ñàkk xaaj ak seenu sëñ Tuubaa dama cee dugg ndax ay ceddo lañu boo ma wëññilee ñaar ba ñetti maam ñu dugg ci ceddo ci ay tuubeen waaye boo gisee ma sañ a toog ci jataay ci ci péncum sëñ Tuubaa di wax Ah, loola yépp ci yaataluk sëñ Tuubaa kon udxulu fi silmi kaafatan jooja ak taalaw ila kalimatin sawain bay na baynakum daa feeñ ci pénc sëñ Tuubaa kon sëñ Tuubaa dafa niroog yonent bi ci asl bi nga xam ni wooteeg yonent bi ci la teg woon ñaareel bi lépp lu sëñ yonent bi daan ndamoo sëñ Tuubaa loola lay ndamoo dinaa bari na waaye dinaa ci joxe ñaari misaal rek benn bi mooy yonent yi jaar yépp ku ci ne yàlla jox na la ay kaawtéef ak i mujizaat yoo xam ni ci nga convaincre say nit yonent bi ne la ko yàlla jox la tax mu convaincre nit ñi mooy wax yu gii di alquran ay mbind la sëñ Tuubaa la mu def ndaxam ci alminaxul miskiya lañ ca lañ lañ ca nettali minanul baaqil qadim lañ ca nettali an nafaxaatul miskiya lañ ca nettali loola yépp dara yéemu ko ci moom la ko ca yéem rek mooy mbindam moom karaamati xattu yadi bil mustafa al muayyadi nga xool la nga xam ni moom la yonent bi di ndamoo di ko puukare woon ne mooy mujiza gi gën a màgg ci gi ko yàlla jox mooy mbind mii di alquran sëñ Tuubaa it gis nga la gën a rëy ca la mu puukare la mu doon ndamoo mooy ni mbindam mii xafistuma sina ani dafatiri yooyu yëpp ida katabtu tazza maliki yooyu yëpp di wane na mu jéem a fexe tënk boppam ba cuub boppam cuub ga nga xam ni noonu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekke woon moo tax fu yonent bi tegoon tànkam lu mu doon ndamoo lay ndamoo lu mu doon puukaréwoo walla doon puukaréwoo ndax roy na ko ci ba mel ni moom bokk na ci ba tey ci ñaareelu misaal bi mooy ni moom sunu boroom fu yonent bi masa tolloo foo xam ni nit lott na ci man fa toll bu ko sunu boroom daan nettali turu muhammad du fa feeñ turu yar turu rasulullahi du fa feeñ turu nabiyullahi du fa feeñ donte fonk na yonent bi lool ba daawu ko woowe turam waaye bu yonent bi masaa yegg ci taxawaay woo xam ni nit musu faa yegg bu ko suñ borom di nettali tur wa dana réer melokaan ya réer benn melo rek la koy melal mooy jaam bi subhaana alladi asra bi abdihi la ca teg ndax isra kenn musu koo def pour fàttali nit ñi rek ne ab jaam la eh, wa innahu lamma qaama abdullahi yaduuhu ndax jinne yi musuñoo nangul kenn ci seen coobare suleymaan da leen jaayam da leen nootoon ci ndigal suñu borom waaye ci seen coobare dañoo nangul yonente sallallahu alayhi wa sallam wa innahu lamma qaama abdullahi yaduhu kaadu yakununa alayhi libada alquran gii nga xam ni moom la yonent bi ne mooy mujisatuhul xaalida ba ko suñ borom di wax ci wane ni donte nag jinne yeeg nit ñépp lott nañu ci amal lu mel ni alquran waaye wa in kuntum fi raybi mimma nazalna ala abdina la ca teg yépp rek ngir fàttali nit ñi ni ab jaam la waaye nag martaba la place la taxawaay la yoo xam ni yonent bi musut a kawe ba kawe palaas yu taxawaay yooyu te nit it musut a yegg ci palaas yooyu nga xool sëñ bi ca ba muy jógee ndar di dem ñu ñu ne dañ koy yóbbu exil e, muy bind asiiru te lépp lu ko suñ borom defal ci tukkeem woowu la ko ko defal tukki woowu ba mu cay dem xam ni la la ko suñu borom di defal yépp dina ko ko ci defale yegg na ci martaba boo xam ni wóor na ko ni kenn du ko weesooti ca la doon woy asiiru waaye teewul mu fàttali ñépp ni ab jaamub yàlla na woon loolu yépp ci taw tawhidam shuhuri wa ayaami gadan li shawaahidu bi anni ya abdullahi wa huwa shahid weer yi ma def ci àdduna ak bis ma fi def yépp danañ ma seedeel ëllëg ni ab jaamub yàlla rek la loolu gaayatun fi taxqiqi tawxid wa gaayatun fi taxqiqi ubudiyatihi lillahi subhanahu wa taala kenn mënut a weesu foofu ndax koo xam ni yaa ngi wuti mu wóor la ni lé fa la nga jëm la nga am lépp da ko la nga bëgg lépp da ko fa fekk lépp danga ko fa am foofu euh, nitu kese daan daan na ci ndamu suhuuri wa ayaami xadan li shawaahidu tegu ci ne maay diw maa fi raw am na ñoo xam ne bu ñu masaa màndi ne seen dëggu teg nañ ko ci kaw loosu wal yu yépp ci buñ masaa tollu fu xaw a jege foofu waaye moom damay wax ni istiqaama gi tax na mandite musu koo déraper loo ak mandite musu koo déraper loo ndax ah, ku ñu si joxoon kaasub sàngara da nga tëf léegi léegi boo ma toll dañ jàpp sa loxo yóbbu la sa kër waaye am na ñoo xam ne mën nañ naan fukki litre ci genn guddi yëngalu leen sax loola it dafay signaler place bi nga xam ni moom la sëñ bi amoon place bi kawe na xaal gi bari na waaye xaal lu mu masa masa masa bari ci moom lu mu masa masa yéeg ci moom lu tax mu mu déraper anil qurani wa sunna loolu dafa bokk ci min xasaayisu cheikh laa budda it ñu xam ko loola da ko fésal ci tawxiidam ci weetal ga nga xam ni moom la doon wéetal sunu boroom e téere yooyu ñu tuddoon insha allah amaana duma ci laal dara waaye baasu sunu waxtaan dañu ko teg rek ci wax xam ni taxqiiq la wala tatbiq amali li tawxiidihi fillaahi wa fi rasuli wa fi l quran te mi ngi ko wax ci muqaddimatul xidma amaana ñu bari fooguñu ko fa muqaddimatul xidma xam ni téere salawaat la sëñ bi mi ngi fay wax naan pour wane ni dëgg la xamees na tawxidul amal al al al nazari gi nga xam ni saxal na ko ci téereem yu ñu fi tuddoon lépp waaye ci muqaddimatul xidma léegi ca la tàmbalee def ko muqaddima ngir saxal tawxiduhu al amali lillahi subhanahu wa taala wa tawxiduhu al amali fi mutaabaati rasuli sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni allahumma inni muqirrun laka fi hada alyawmi wa baadahu bil uluhiyati wa bil waxdaaniyati wa bin nafsiyati wa bi baqiyati salbiyati wa bil maani wa bir rububiyati wa bil asmaai alxusna wa bi annaka maaliku kulli shay wa xaaliqu kulli shay wal aalimu bi kulli shay wal xaakimu ala kulli shay والقادر على كل شيء اللهم إني مقر لعبدك ورسولك وحبيبك سيدي ومولاي ووسيلتي إليك من هذه الساعة إلى وفاتي وقرة عيني محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بالرسالة وبالصدق والأمانة والتبليغ وبأنه أفضل الخلق جميعاً wa bi anni jaaltuhu lyawma wa gadan wasila wa gadan wasilati wa qudwati mu waxati ci alquran ne wa bi anni raditu billahi rabban wa bilislami diinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasulan wa bilqurani dalilan wa bilkaabati qiblatan wa muqirrun laka bi annaka xayru raziqin wa akramu alakramin wa arhamu arrahimin wa bi annaka algafuru arrahim alshakuru aljawaadu alkarim albarru alwaasiu annafiu alganiyu almugni nga xool li mu dugal fii ci xeeti tawxiid ci xeeti wéetal suñu boroom ci jaamu ak ci jox ko sa bopp ci xeeti wéetal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci topp ko ci xeetu jël alquran def ko muy dalilam xam ni li mu bëgg xam ci boroom ak yonent bi yépp alquran ak koy tegtal li nañ ko def ci muqaddimatul xidma amaana suñu waxtaan lépp ci maani yii mu wax fii ci lay wër ndaxte coow li bari na ci wàllu séddale tawxiid ñii séddale ko ñetti xaaj tawxiidul rububiya uluhiya asma wa sifaat ndax am sax ci la bokk ñii séddale ko ñaari xaaj tawxiidul ilmi wal isbaat wa tawxiidul qasdi wa talab wa tawxiidul qasdi wa talab ñu ne ñaari xaaj yooya la waaye moom nga gis fi mu génne ci tawxiid ngir yëg ni mu doon yëge suñu boroom ni mu xame woon suñu boroom ak ni mu ko doon yëgee tax mu xam ni yàlla dañ ko war a wéetal ci anam yu bare bare bare bokk na ci anam yañ ko war a wéetalee te moom wéetal na ko waaye mi ngi reconnaître xam na ko nawariyan waaye mi ngi reconnaître tatbiqiyan ci muqaddimatul xitma ne moom mi ngi koy saxal te mi ngi koy dund moo tax loole la tàmbalee ni allahuma mu muqirrun laka fi hada al mi wa baadahu bil uluhiya gëm naa ni yow rek yaay yàlla ndax uluhiya ci baatu ilaah la jóge ilaah nag mooy nga xam ni moom lañu war a jaamu ci dëgg eh, bi indi na ko ci tafsiram mu ngi bi muy génn ishtiqaaqu ilaah mu ngi cay indi benn bayit bu benn waykat masoon wax ne lillaahi darrul xaaniyaati l muddahi sabbaxna wastarjana min taalluhi taalluh bi maanaa at taabud kon yàlla maa ngi lay saxalal ne yow rek lañuy ñuy jaamu te yow rek laay jaamu kon loolu tawxiit la goo xam ni tawxiid amali la goo xam ni sëñ bi da ko doon dund nekk gi mu nekk di jaamu yàlla moom loolu moom biir na ñépp alqaasi waddaani ndax ay mbindam wane na ko xibaar ya ñuy toxalee ci moom ci ñi dundandoog moom wane nañ ko kon wéetal yàlla ba musuta aju ci dara ci ci kenn ci lenn lu dul sunu borom sëñ bi da ko fésal ci ay anam yu baree bare bare fésale na ko mu bokk ci li or li li li extraordinaire ci moom li yéeme ci moom mooy fésale na ko ba lépp loo xam ni sunu boroom dañ ko koy defal mu santuñu ko te sax nag yenn saa yi mu jéggal ñu ci ñu man ko séq nit sëñ tubaa comme sunu borom bëgg na loolu rek moom jombale na boppam di séq lu mel noonu nit dama ciy joxe misaal rek tàllal loxo nga tegal ko ci dara nga ku nekk sañ ga ko de nit di la jox dara nga tàllal sa loxo mu tegal la ci waaye sëñ bi na loxo ya muy ñaane yàlla di ko tàllal suñu borom mu koy may jombale na boppam di tàllal loxo yooyu nit di ko ci tegal dara wax na ko ci ay mbindam yu bari maa ngi ciy jàpp eh, katabtu fi lbahri anni la amuddu yadi ila nasara e nga gis ne jombale na ko bopp di tàllal loxo ñu ko ci tegal dara ca yoonu géej ba même xam ni ay xaajoom la bu ñu ko masaa indi ku ko indi daan la tegal nga teg waaye du tàllal loxo mukk nga teg ko ca kon kooku it gaaya la ci taxqiqul ubudiyati wa tawxidillahi subhanahu wa taala te ndaxam nag sañoon na tàllal nanga ko ciy tegal comme ni ko ñëpp di defe waaye nag mu baala xaam ci wéetal suñu borom ba noo xam ni akt boo xam ni xaraka boo xam ni da koy def jëme suñu borom jombale na ko boppam di ko def jëme ci mbindeef te sañ na ko wàll yooyu ñooy wàll yu yéeme ci sëñ bi moo tax bokk na ci tawxiidul loola bokk na ci wéetal gëmu wéetal yàlla ci ni ay jëfam yépp sunu borom la ko jébbal subhanahu wa taala saxalal na yàlla ni yàlla mooy kenn danañ jël ci waat ci tomb boobu ci kanam waaye nee na mi ngi saxalal yàlla ne yàlla mooy kenn amut moroom amut ñaar du ci melokaanam du ci ay jëfam du ci yamuy jomb yàlla amul kem amul moroom kon saxalal na yàlla comme ni ko yàlla bëgge ci moo ci ci ci jaamam yi ñu saxalal ko al waxdaaniya fii kulli maa huwa sifatul sifatul kamaali lahu lépp luy melokaan woo xam ne ak kamaal la sëñ bi nee na mi ngi koy saxal ne yàlla rek moo ko yayoo lépp loo xam ne it sifa la boo xam ne salbiya la nee na mi ngi koy dàqal yàlla comme ni koy yàlla dàqale bopp kon wéetal yàlla ci lépp incha allah dinañ ci delluwaat waat ci kanam mu ngi saxalal yàlla melokaan ya nga xam ni it melokaanu nafsiya la yi nga xam ni yàlla ci boppam eh, dafa aju ci moom yàlla ci jëmmam ju tedd ja nga xam ni kenn musu kenn mënu koo misaal ndax yàlla lépp lu mu waxal boppam ne noona la mel nirowu ceeg doomu aadama dara laysa ka mis laysa ka mislihi shay waaye nag wa huwa samiul basir dara niroowul ak moom nee na mi ngi saxalal yàlla ya nga xam ni yàlla moo ko jagoo ci ay sifaat comme ni ko yàlla saxale boppam ci anam ya nga xam ni it yaliqu bi jalaalihi subhanahu wa taala wa azamatihi ba tey nee na mi ngi saxalal yàlla rububiyaam ar rububiya nag bu ñu ko waxee mooy rabbu gi yàlla doon rabbu yi lépp moom gi yàlla moom lépp ndax yàlla mooy ki moom lépp ndax moom rek moo bind hal min xaaliqin la amul lenn lu nekk ci kaw suuf ci àddina bi te kenn indi ko fi yii ñu jàpp ni ñu defar la sax ah, matière premier ba fu ñu ko jële kenn jëlewul lenn ci biti àdduna indi ko ci àdduna lu fi nekk rek yàlla subhaanahu wa taala moo ko moo ko indi hal min xaaliqin xayrullah ndax am na kenn koo xam ne bind na dara ak lu mu tuuti tuuti tuuti ku dul yàlla subhaanahu wa ne mu ngi saxalal yàlla kon lépp loo xam ni melokaanuk rubu bi yaam la nde yàlla mooy rab buy lépp moo moom lépp ndax moo bind lépp dinañ ci dellusiwaat di saxalal yàlla yi turi yàlla yi nga xam ni ñooy tur ya yem ca yemukaayu taar dañoo rafet ba fa rafet mën a yem ndax li tax tur yooya rafet mooy ni tur wu ne ci tur yooyu dafay làmboo maanaa moo xam ni dafay làmboo maanaa moo xam ni amul menn maanaa mu ko gën a rafet am na tur yoo xam ne sax dem nañ ba sàkku ne bu ko bu ko di sax teqale boo koy wax ndax boo ko teqalee boo koy wax ak boo boo ko taqaalee maanaa yi dafay wuute wala maanaam yi ci boo beree benn tur wi comme alxakamul adlu foo waxee xakam rek booya boo nga teg ca adlu ndax bu dee xakam ku nekk mën na doon xakam alxakamul jaayiru am na alxakamul adlu am na moo tax boo nee alxakam nga teg ci al adlu ñaari tur yooyu bu li kenn bu ko di teqale kon alxakamul adlu kon yàlla moo moom tur ya gën a rafet ci tur yi sëñ bi nee mi ngi koy saxalal yàlla maa ngi saxal it di it ni yow yaa moom lépp amut lenn lu nit mën a teg bët wala loxo man ko daj wala yëg-yëg man koo yëg lu dul ni yàlla subhaanahu wa taala moo ko moom wallahu xalaqakum wa ma taamaluun moo moom lépp ndax moo bind lépp mu ne mi ngi saxalal yàlla it ne ko wa xaaliqu kulli shay lépp yow yàlla yaa ko bind amut lenn lu am nekk ci nekk téef yi dama dama wax sax lu weesu àdduna ndax bu nekkul lu sey du ni àdduna rek mooy sey la weesu àdduna te ga ëpp àdduna gën a bari àdduna bari na waaye lépp lu ñu mën a wax ni lii sey u rek yàlla subhaanahu wa taala moo ko bind sëñ bi nee na mi ngi koy saxalal yàlla maa ngi saxal maa ngi lay saxalalit nii yow yaa xam lépp dara ump la ci maanaa yi mu indi li tax sëñ bi di saxal wéetal yàllaam ci yii mooy yi benn bu ci nekk am na ci ñoo xam ne dañ cee amuk inxiraaf ndax bu dee mu'tazila yi wala eh, jabriya yi nee nañu yàlla ci boppam bindul jëfi jaam bi yow mën ngaa sañ def loo xam ne yàlla mënu ci dara bu la neexee mën nga ko def te soobul yàlla te suñ borom nee na wa ma tashaa'una illa an yasha allah kon sëñ bi ñoom la ciy tontuwaale dimnan ne yàllaa bind lépp te moom mooy xam lépp bu dee mu'tazila it nee nañu yàlla xam na lépp waaye xam ngoo xam ni jumlatan la laysa tafsilan xew-xew yi xam yi am ci bërëb yàlla xam na ni dana xew waaye détail ya nekk ci suuf nee nañ yàlla xamu ko ñoom mu'tazila yi sëñ bi it di féddali ne nangul na yàlla ni yàlla moo xam lépp dara échappé wul dala rëccul xam-xamu yàlla ci li mu xam détail yeeg lépp la xam wa maa tasqutu min waraqatin illaa yaalamuha ak yu gën a sew yooyu sax eh, mu dellu waxati ni wal xaakimu ala kulli shay yow yaay ki nga xam ni yow yaay atte yaay lépp yow rek yaa sañ a atte mu ngay saxal foofu ne yàlla rek moo sañ a kon du déglu kenn di àtte ci moom fi mu jaar ak tubaab yi da fay gis wéetal yàlla daf cay feeñaat wéetal goo xam ni tawxidullaahi fil xukmi ne yàlla rek sañ a àtte inil xukmu illa lillah afa xukmal jaahiliyati yabxuun yàlla rek a sañ a comme yàlla rek a sañ a nag moo tax musul nangoo déglu kenn di teg ci kawam ay condition la xew ci digganteem ak tubaab yi bañ ku ko saytara bañ ku ko nëb bañ ku koy atte atte woo xam ni at àndul ak atte yàlla loolu moo tax fii li mu wane mooy ni mi ngi saxalal ne yàlla rekk ay atte yàlla rekk sañ a sañ a mu dund loolu it ndax musuta bëgg kenn atte ko ku dul yàlla kon loolu it wéetal yàlla la koo xam ne da koo wéetaloon ci àtte boo xoolee tawxid gii di tawxidul xaakimiya indi na coow lu rëy rëy rëy ndax ñu baree baree bari ci àdduna ba ci arab yi tawxidul xaakimiya gi bëgguñu koo dégg am na ku ñaan Seydou Xutub daanaka wàllu tawxidul xaakimiya la jote woon ak waa waa waa waa réewam Misra ba dañ koo mujjee rey en 1966 ngir dafa wàllu xaakimiya bi da ci da ci appuyé woon lool di ci wax ne kenn warta àtte kenn ku dul yàlla sëñ bi it lool la gëm ne moom yàlla rek moo war a àtte moo tax nanguwul woon kenn ngëpp ko nanguwul woon kenn di ko traceel fa muy jaar ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy royuwaayam alxuraan mooy giidam àtte yi nekk ci alxuraan doy na ko sëkk ci léppam kon loolu it dafay dugg ci wéetal yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ci ni moom rek lay topp naka ni mu wéetalee yàlla ci ni yàlla rek a ko war a àtte waaye wéetal alxuraan ne ci lay jëlee rek la ko war a àtte kon loolu dafa bokk ci at tatbiqul amali gi nga xam ni noona la sëñ Touba doon appliqué pas-pas yooya mu jàngale ci mawaahibul xundus ak téere yu mel noonu eh, nee na mi ngi saxal gannaaw ba mu saxalalee yàlla yooya nga xam ni bu ci nekk da ci daa wéetal yàlla saxalal ko yàlla delluwaat na di am yu mu saxalal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yàlla maa ngi saxal ni maa ngi saxalal sa yonent sab jaam sab soppe di sama sang ba di sama kilifa di sama wasiila damay jaar pour yegg si ci yow maa ngi koy saxalal dale ko tey ba keroog bis penc may faatu maa ngi koy saxalal ne la nga ko yónni woon yépp jottali na ko lépp loo ko jottali woowu jottali loo woon pour mu yindi la ko jottali la ko jaam yi jottali ne ko lépp ba mu mat sëkk kon loolu ku egg ci yaqiin moo man loolu wéetal yàlla waaye wéetal yonent bi ba gëm ni gëm gu amut genn sikki sàkka ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam lépp lu ko sunu borom santoon pour mu jottali ko jottali na ko moo tax lépp loo xam ni mas naa jote ci moom Serigne Touba ci ndigal yonent bi jëfe na ko lépp lu mu mas a jote it ci lu yàlla yonent bi di tere ba sori na ko zahara li anna bil kitaab wa bi xadiisil Mustapha huwa sawaab jàpp ci alquran ak xadiis yonent bi rek ay dëgg ndax ñaar ñoom ñoo koy de pour mu xam li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggoon te yonent bi alquran ak xadiisam la jottalee. mu ne mi ngi saxalal yonent bi ne jottali na lañ ko jottali woo jottaliloo woon ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi saxalit ni lépp loo bind muy nit di jinne di malaayika ba ci karu bi yoon yi. yépp yonent bi sallallahu alayhi moo leen gën sëñ bi nee mu ngi reconnaître di saxal di seede lool moo gën ñépp wa bi annahu afdalul xalqi jamian bu ñee la xalqi jubluwuñ ci nit kese waaye lépp loo xam ni mbindeef la yonent bi moo la gën ba ca arash sax nga yàlla di melal ne al arshul azim lépp luy mbindeef yonent bi sallallahu alayhi sëñ bi mi ngi ko mi ngi saxal ni yonent bi moo la gën maa ngi saxalit nii man dey reconnaître naa nangu naa def yonent bi mu doon sama wasiila nangu naa koo defit mu doon sama royuwaay tey ba ëllëg loolu it saxalal na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi rek it nag amul woon benn royuwaay yonent bi la wéetaloon ci def ko royuwaay kon sëñ bi saxalal na yàlla la nga xam ni moom la yàlla yellool waaye it saxalal na yonent bi sallallahu alayhi wa la nga xam ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallama it yellool kon yooyu yépp ay tawxiid la yoo xam ni eh, laysa tawxiidan nadariyan waaye tawxiid amali la ndax nadari ga jàngale na ko ca téeréem yooyu ñu tudd waaye moom ci boppam nag comme eh, muqaddimatul xidma gi nga xam ni yii ci la nekk pas-pasam la bëgg a wane taxawaayam la bëgg a wone ci yonent bi sallallahu alayhi ak ci yàlla ak ci alquran def ko muqaddima gi nga xam ni mooy feuille de route am mën nañ koo misaale noonu ndax xidma ga nga xam ni moom la doon xadiman li rasuli sallallahu alayhi wa sallama e lii muqaddima la goo xam ni moo koy jiital moom muqaddima gi ay fopp sëñ bi yóbbu ko ci mu taxaw ci taxawaayu xadim wala moom moo jël muqaddima gii moom moo jël téere bii ak la mu làmboo def ko mu doon loo xam ni da koy taqdim moom yóbbu ko ila martabati al kon sëñ Tuubaa nii la doon dunde at tawxiid saxal ko jëfe ko dund ko ba keroog ni mu wujjee borom waaye naka noonu nee na yow yàlla maa ngi saxal ni nangu naa gërëm naa gërëm naa la nga doon sama boroom lislaam it nangu naa ni mooy sama diine te it nag dañuy wax ni lislaam sëñ Tuubaa da koo dund comme lislaam ndax baat la boo xam ni lu baree baree bari ci làkk yi am fii ci suñu réew mi wala ci làkk tubaab yi sax duñu koy firi dañ koy bàyyee rek na nga xam ni noonu la ko noonu la ko arab di waxe bu dee wolof mu ne lislaam Euh, xeet yépp daanaka lislaam rekk la ñuy wax euh, mais baat bi la muy tekki mooy jébbalu jébbalu ci kan jébbalu ci suñu borom sëñ bi saxal na ne lislaam mooy diineem diine it li muy tekki mooy dundin diine fii comme diine lislaam la muy tekki ci wolof mooy dundinu lislaam ku la ne luy sa diine nga ne sama diine mooy lislaam loolu mooy dafa laa laaj luy sa dundin nga ne ko man de samay dundin mooy dundinu jébbal sam bopp yàlla loolu mooy tekki diine lislaam dundinu jébbal sa bopp yàlla kon moom nangu na dund dund ni jébbal sa bopp yàlla waaye ndax dund ni jébbal sa bopp yàlla ña koy wax yépp ñu ngi koy dund yombul ndax sunu boroom bu dee danga ne dangaa ngaa jébbalu ci moom sa dund mooy dundinu jébbalu ci moom war nga fexe acte booy mën a def say xarakaat say sakanaat sa lépp lu mu mën a doon ci sa dund mu wóor la ni defe nga ko ni ko suñu borom bëgg bu ko defee booba lay doog a wére ni dund nga ci sa àdduna nu jébbal sa bopp sa borom kon cër wu ne ci cëru doom aadama bi yàlla dafa am ak xeetu njébbalu gu mu ko sas tere ya nga xam ni digal ya nga xam ni dafa aju ci làmmeñ ak tere ya nga xam ni dafa aju ci làmmiñ loolu ak jébbalu ci yàlla la njébbalu goo xam ni la sas wa ca làmmiñ la tegu tere ya nga xam ne dafay aju ci nopp bu dee aju ci làmmiñ wax fit min sawtika inna ankara aswaati la sawtul xamir e, bu fekkee ni loolu ay tere la booy wax waxal ndànk bañay di yuuxu nit ñi di leen gëdd Eh, laa yaxtab baadukum wala yaxtab baadukum baada loola it ci tere la yoo xam ne dafa aju ci làmmeñ fen tamit tere la yu aju ci làmmeñ kon sa jébbalu gi aju ci sa làmmeñ mënut a wér mukk lu dul ndigal ya aju ci làmmeñ yaa ngi koy jooxe ci xeeti jàng alxuraan tudd yàlla waaye tere ya aju ca làmmeñ yaa ngi fexe moytul ko sa làmmeñ bu boobaa dana wér ñu ne làmmeñ wi kat moomul làmmeñam yàlla la jébbal làmmeñam am nay tere yoo xam ne dafa aju ci nopp fa ida samitum ayati llahi yustahzau biha nu mu ko waxatee sax yukfaru biha fala wa yustahzau biha fala taqudu maahum xata yaxuudu fi xadithin gayri kon loolu xeetu njébbalu la goo xam ni yàlla dafa bëgg nga jébbalu ko ci moom waaye sas wa ci nopp la tegu te gis sëñ bi ne mu doon dunde noonu yi loola yépp ak xeetu njébbalu goo xam ni ci say tànk la aju ci dem foo warta dem ci doxe noo warta noo waruta doxee wala tamshi fil ardi maraha yii aju ci say bët ci bul xool warta xool kon ku ci nekk am na xeetu njébbalu goo xam ni cër wu ne yàlla sas na ko xeetu njébbalu googu amaana dinga gis koo xam ni ak njébbaloom ca làmmiñ wa ca bët ya ca loxo ya amaana wér na waaye doxin nga tax na ak njéggul njébbuloom des koo xam ni boo ko nattee ci yeneen anam yi gis nga njébbuloom wér na waaye bu waxee rek nga xam ni kii joxut boppam yàlla waaye sëñ bi moom fexe woon na ba cëram yépp mu tàggat ko ba cër wu ne jox ko sunu boroom la ca sunu boroom namm cër ya yooya loola rek la mas di def la ca suñu boroom bëggut cër yi fexe na ba teet ko ba moytu ko loola dinañ ci ñëw ci ay bayit yoo xam ni mi ngee wax lu mel noonu kon moom istislaamam jébbaloom ci yàlla njébbalu la goo xam ni istislaam kaamilan ba nga xam ni tajarada an kulli alaaiq lépp loo xam ni mën na ko xaw a xaw tardeel lépp rek summeeku na ci loolu bocceeku na ci loolu ba dara tardeelu ko léppam doon sunu borom kon iqraar gi mu iqraaral sunu boroom wax daani ye ca yooya mu lim yépp saxalal ko yonent biir ca yooyu mu lim yépp naka noonu noonu nangoo jël jëmmam ju tedd jooju jox ko sunu borom ci lépp ba amul suwaa ci dara bugalul boppam dara bañalul boppam dara demalul boppam fen amul lenn lu mu tànnal boppam li yàlla tànn rek la tànn waaye wa rabbuka yaxluqu maa yashaa'u wa yaxtaar maa kaana lahumul xiyara da ko déggoon lu ko suñu boroom tànnal rek la tànn sañut woon a tànnal boppam lenn ci dundam lépp rek ngir wéetal suñu borom ci nekk Euh, ci li sunu borom bëgg ci moytu li nga xam ne moom la sunu borom bañ euh, saxalal na yàlla la mu ko saxalal ak yonent bi waaye it saxalal na boppam ne moom jëmmam ji jébbal na ko sunu borom nee na it bu fekkee ni nit dana soxla ca kaw suuf la muy soxla wërsëg la walla teraanga wala ku am ci moom ñeewent wala mu juumee bëgg ku ko jéggal yërëm ko walla bu amee mbégte ku mu war a sant waaye eh, wala bu amee soxla kamu ko war a ñaan loola yépp mu ne du kenn moo koy def nga xool nga boo delloo ca ibrahim yooya mu ibrahima saxaloon sunu boroom walladi yutcimu nii ويسقين وإذا مرضت فهو di والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي mat الدين ndax doomu aadama lii rek la soxla ci àdduna boo feebaree ki lay faj nga wér ak jàmm nga soxla boo feebaree ku lay faj nga wér boo xiifee fooy jële li ngay lekk boo maree fa ngay jële la ngay naan boo defee naka sudut noonu ku lay jéggal sëñ bi lépp mu jëlaat ko delloo ko suñu borom comme ni ko Ibrahima delloo woon suñu borom delloo woon suñu borom moo tax mu ne ko woo mu xirrun laka bi annaka xayru raziqin comme yow yaay wërsëgalaa koon ba kon du ma ci kenn ku may wërsëgal lu ma waaye mën a damay xam ni du moom moo ma ko indil ci coobareem waaye yow yaa ko indil yow suñu borom moo tax du ko tàllal sama loxo ma ko ciy teg na ko ci suuf maa ngi saxal ni yow yaay kii wërsëgalaate kon duma sàkku ci kenn lenn lu may defal ku dul yow yow yaay ki nga xam ni yaa gën a tedd ñépp gën a tabe ñépp yow rekk sax yaa tabe kon awma kersa awma genn sikki sàkka awma genn dengi dengi bu ma amee soxla ñaan la ko ndax xam naa ni dooma xaj akramul akramin mu ne ko yow laa xam ne ak sa sama lot ndax mbindeef laa te mbindeef dafa am melokaan wu takkook mbindeef bu ne mooy ak lot xam naa ni dama lot sama lot googu it yow yaay kii may yërëm ba dooma teg lu ma munut ki may yërëm ba dooma teg lu ma munut fii ci àdduna alaaxira it yow yaay ki may yërëm ba boole ma ci ñiy texe kon duma ko sàkku ci kenn duma sibooru kenn duma martànki kenn du ma sukkal kenn wala may raamal kenn ci yow rek laa koy sàkk yow suñu borom eh, mu waxati ni wa bi annaka alxafuru rahim yow yaay kiy jéggale ndax doomu aadama buy nekk ci kaw suuf lu ne mën na koo dal lil yaxfira laka allahu ma taqaddama min dambika wa ma taaxara comme yonent bi lañ ko wax ku ci nekk surtout nitu yàlla yooyu donte suñ borom wattu na leen sax waaye ku ci farlu woon guddi gi nga dundal ko am benn minute bu la ci échappé rek da ngay jàpp ni def nga loo xam ni ah, lu lu lu lu lu defuwut loola daan na leen jaral di ko xalaat di ko jooy ba ilaa macha allah kon tolof tolof bu ma dalee yow yaa yaakaar nga jéggal ma ndax yow yaay jéggalaa koon ba yaay yërëmaa ba ya nga xam ni ay xéewal la yuy yegsi ci man te moom xéewal ga mu jàppoon ni mooy xéewal ga gën a màgg mooy xéewaluk nangu gi mu nangul yàlla mooy xéewal gi gën a màgg ci moom du ay poñaxiti àdduna yu ñu koy indil du soxla su mu doon dàqi ba jot ko du lu ñu ko defal waaye xéewalu na jàppandal ga ko yàlla jàppandalal mu jox boppam lépp yàlla kon loola du ca sant kenn ku dul sunu borom kon yow yaay ka nga xam ni yow rekk lañu war a sant waxati ne ko moom yàlla yow yaay ki tabe yow yaay ki baax ki nga xam ni la mu am du jeex alwaasiu say may sa la nga am ñépp xaj nañ ci yaa xam xeeti yërmande la yaa xam xeeti wërsëg la yaa xam xeeti teraanga la yaa xam xeeti njégal la waaye lépp loo xam ni rek aji lott soxla na ko yow am nga ko te doo ko jeexal te ñépp xaj nañ ci kon du ma ko sàkku ci kenn ku ci yow sunu borom eh, yow yaay ki nga xam ne yaay jariñe bu mu def yépp daje woon doon sàkku doon doon bëgg a jariñ nit ci loo àndul njariñ la du yegg ci moom bu ñépp daje woon ngir bëgg ko xañ loo ko bëgg a jox faw mu mu àgg ci moom kon nangu naa ni yow yi yépp ay iqraaraatam la ay reconna ay reconnaître yoo xam ne da ko reconnaître nangul ko sunu borom kon defe naa ki nangul yàlla lii kooku amaliyan jeexal na xeeti tawxid wéetal na yàlla ci lépp jàngale na tawxidu nazari waaye tawxidu tatbiqi détaillé na fii loo xam ni amaana doo ko fekk mu dajaloo ci ci ci geneen téereem ci détail bu bu bu gàtt bu tënkoo nii léegi nag bu ñu jógee foofu pour euh, gën a confirmer gën a feddali taxawaayu sëñ bi ci wàllu wéetal yàlla na mu ko doon dunde ci ay jamono yoo xam ne jamono yu wuute la ci ay réaction am lu xew ci moom na mu doon réagir na mu doon na mu doon euh, infiaale ca loola yees ci moom lépp rek da koy jël delloowaat ko suñu borom bu ñu ciy joxe misaal ku saxoon la daan ñaan yàlla ngir yàlla jàppandalal ko mu doonub jaam daan ñaan yàlla maa ngi lay ñaan nga dimbali ma ma doon sab jaam mu ngi ni yàlla foofa la mën a yam dimbali ma ndax dama nisar doon sab jaam kese dara du rax ci ma dooma bokk ak dara nisar naa loolu ci sa jëmm ju tedd ji kon dimbali ma ma mën a saxal loolu ca lay waxe ne nuzuuriya kaw ni abdadil arshi waxdahu man li xayril xalqi wax wa nadir ni naa doon sab jaam yow mi nga xam ne yaay boroom arash yow kese nag kenn bu am dara ci man bu kenn am benn cër ci man waaye it nga jàppandalal ma it nag ma nekk liggéeykatub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon liggéeykatu ki gën ci mbindéef loola day sama nisar la maa ngi lay ñaan nga jàppandalal ma ko te yoon wii nga xam ni maa ngi cay dem nii ah wan nga ma ni jàppandalal ma kon maa ngi lay sant kon ñu ñëpp ay jaam lañu waaye bëgg a sifaatuk njaam jëfi jaam waxinu jaam doxinu jaam sa lépp rek nga canaliser ko ci benn benn kanaal boo xam ni canaluk njaamu ba mu jaral la nga yëkkati sa loxo di ñaan yàlla def ma ma doonub jaam kese kooku sëñ bi rek moo ko def ma ma doonub jaam mu dellu waxati sunu borom ne ko min ka aruumul yawma an akuna mimman abaw li xayrika rukuna ne yow yàlla ci yow laa sàkkoo bis ni tey nga def ma ma doon koo xam ni soxlawuma ci kenn dara du wut ci kenn dara du ma sàkku ci kenn dara du ma jeng jëm ci kenn ku mu mën a doon nga xool fii ci ñaari bayit yi wala ci benn bayit bu mujj bi sax mu nga cay saxal maanaa laa ilaha illallah ndax laa ilaha illallah gi nga xam ni mooy kalimatu tawxid ñaari maanaa la séq dàq ci nekk ak saxal dàq mbooleem lu ñuy jaamu lu dul yàlla dàq ak njaamu wëlis lu dul yàlla kon dàq nga ak njaamu saxalal nga ak njaamu ñeel yàlla kon moom xam na ni doyul rek nga ne da ngaa yàlla waaye wéetal yàlla dafa am lu mu war a àndal mooy lu dul yàlla nga sori ko lu dul yàlla nga sori ko eh, ca na mu ko waxe ci eh, alladina amanu ca mujjug ayatul kursi eh, alladina yu yakfu wa yakfuruna bi ta yuminuna billahi wa yakfuruna bi taaxut nu mu ko waxatee ca aaya ja eh, amana rasul ma unzila ilayhi min rabbihi lu jiitu loolu sax allahu waliyu alladina amanu yuxrijuhum min adulumati ila nuur walladina kafaru awliyaahum taaxut yuxrijunahum min annuur ila adulumat ulaika ashabu naar hum fiha xaalidun lu mu ca tegati hmm? ah aywa yuminuna bil jibti ala kulli xaal la yàlla bëgg a aya bi ma maa ngi koy teewlu waaye li mu bëgg a wax rek mooy ni jaamu yàlla wéetal yàlla mënut a wér lu dul dafay ànd ak weddi lu dul yàlla da wéetal yàlla weddi lu dul yàlla kon sëñ bi xam na ni wéetalam yàlla laa budda mu sori lu dul yàlla moo tax mu dellu ñaanaat yàlla ne ko dimbali ma la may sàkku ci yow mooy nga dimbali ma pour ma doon sab jaam rek bu dara rax ci man ma bañ a jeng jëm ci kenn bañ a jeng jëm ci lenn loolu it benn mazhar la min mazahiri tahqiqihi lil ubudiyati wa li tawxidillahi subhanahu wa taala bokk na ci it na mu daan waxeeg boromam di wone ab fuukloom ci ni moom léppam sunu borom la umuuri lahu fawattu wal qalbu tayibun xariban la dal aadai wa huwa basiru ne samay mbir yépp yépp nag ci zaahir ak ci baatin lépp fuglu naa ko sunu borom yoraluma sama mbir sama bopp dara manaluma sama bopp dara sañaluma sama bopp dara bëggaluma sama bopp dara bañaluma sama bopp dara sama lépp rek sama borom laa ko fuglu moom laa ko delloo moom mi nga xam ni moo ma bind bind la may jëf moo bind samay sañsañ bind lépp ci man soxlawuma lu dul rek yoon wa ma mateegu ci kon loolu it mazhar la min mazahiri taxqiqi at tawxidi wal ubudiyati lillahi subhanahu wa taala te nag loolu dunde ko doon ko dunde foo xam ni ci biiri ay noonam rek la ko doon dund ndax wéet ci xaal yenn saay e, dana tax nit ki nit ki dérapé la la la abu ismail al harabi doon waxoon doon wax rek ne waxshatu tafarrud ilaajuha adamul iltifaat nee na boo wéetee ci aw yoon ba wéet gi indil la tiitaange ak ragal boo bëggee wéetaange ga ragal ga doo ca loru bul gestu te sëñ bi fa mu jëm nii rekk la ci def musuta gestu benn yoon ndax xam na fa mu jëm xam na ka mu fay fekki xam na it la mu la mu fay fekk donte ci ay biir yi noonam la nekkoon waaye loolo musu koo dérapeloo benn yoon musu koo soreloo la nga xam ni mooy pas-pasam te mooy taxqiqu tawxid lillahi subhanahu wa taala wa taxqiqu lmutaabaati li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam mu dellu waxati it nii musa mufawidan musalliman ilayka amri muhaajiran lima ladayka summa ilayka laa ila siwaaka qad sirtu lamma lam ajid sharwaaka mu ne maa ngi fuuklu di la delloo samay mbir yépp di yéesal sama jox sama bopp gi ma la jox sama bopp jébbal la samay mbir yépp gàddaay gàddaay ngay nit dama gàddaay ndax nit boo gàddaayee dangay ngay dawe fa nga gàddaay wuti feneen waaye man damaa gàddaay wut si la yow sama borom dama gàddaay wut si la waaye ba ma yegsee ci yow ci yow rek laa sukkandiku wéeruwuma ci kenn soxlawuma kenn bugguma kenn ci yow rek laa sukkandiku ndax xam naa ni yow rek yaa yore sama njariñ yow rek yaa yor sama lor comme ni nga ko yorele mbindeef yépp mu waxati ni <clears throat> fikri wa qawli wa amali ila al baari dikran wa shukran sama xalaat la may xalaat yépp du may xalaat ci lenn lu dul sunu borom fanaawu la def goo xam ni yëgatul dara gisul dara xamut dara lu dul sunu borom du xalaat dara lu dul borom moo tax mu saxalal boppam ni samay xalaat lépp samay wax juma ma mas a wax samay jëf yu ma mas a def lépp rek dama ko yóbbu suñu borom bu ma waxee moo tax may wax bu ma jëfee moo tax may jëf bu may xalaat ci moom laay xalaat moo tax sama dund man ko séddale ci zikru ak ci sukkur tudd yàlla ak di ko sant rek di ko tudd di ko sant yaa xam ci xaalatul iqbaal la wala xaalatul idbaar la moom yàlla rek la seen ay axwaal la yoo xam ni ñu tudd saw fi dañ koy wax nit ki day dem yenn saa yi ay mbiram nekk alal wajhil iqbaal yenn saa yi mu nekk ala wajhil idbaar yéeg ak wàcc dund doomu aadama noonu lay def saa su ne waaye moom alxaalam musuta changé xaalam musuta change istiqaama gi da koo tënk alquran tënk ko ba musuta change fii xaalati iqbaalihi wa xaalati idbaarihi xaalatu idbaar boo demee ci nitu tasawuf yi comme ibnu ataillah ak ñoom eh, ahmad zarruq ci qawaayidu tasawuf ñu ngi wax ni jaam bi buy nekk ci xaalatul idbaar lu baree baree bari xeetu lu mel ni ak càggante la wala xaw yokkat tuuti malal bu koy jàpp ca tawajjuham ga mu doon def jëm ci sunu borom yenn saa yi malal jàpp ko ci yoon wi ak yokkat xaw koo jàpp xaw taayal tuuti xaalatu idbaar boobu sëñ bi nee na musuta am genn changement fii xaalati iqbaarihi wa idbaarihi ndax yi rek ñoo doon axwaalam al fikru fillaahi bu waxee yàlla bu xalaatee yàlla bu jëfee tamit yàlla zikkar ak zikkar ak sukkur rek mooy axwaal kon loolu it buñ ci bàyyi xel dinañu gis ni xaala la boo xam ni mooy li ma doon wax sànq rek eh, xaal musu koo mandité musu koo tërëfloo ndax eh, li tax musu ko tërëfloo ndax daa sut ñëpp daa raw ñëpp ku la ku la dàq naan sàngara man caa dékkuloo mënta dékku bu ngeen séqee ndabu sàngara yaay yaay njëkk a kon ñoom dañu dem ba dañu dañu ci yàgg ba nga xam ni ay liitare li mandiloo sëñ bi nag dafay yàgg ci xaal ba xaal du ko tërëfloo kon fii xaalati iqbaalihi wa xaalati idbaarihi amul benn changement moom yoonu istiqaama gi rek la jàppati alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek ñoo nekk ñaari nibraas yi nga xam ne ñoo koy niital fu mu jëm mu dellu di xaatabanteeg ña nga xam ni dañoo bëggoon doon xajara asra bëggoon doon ab pakkatal ci kanamam ba yoon wa mu jaar pour yegg ci suñu boroom ñu gàllankoor ko ba du yegg walla ñu gàllankoor ko ba tardeel ko moo tax mu delluwaat ci ñoom ne leen ataxsabuuna anna gayra allahi jal yadurru aw yanfau in xaana al ajal laa taxsabuuni indakum asiira laa yartaji waliyan aw nasiira man zanna anni xayru abdillahi wa xayru xaadimi nabi fasaahi mu ne leen ndax dangeen jortu ni e, kenn ku dul yàlla maa ngi xalaat ni dina mën a lore wala muy mën a jariñe ndax dangeen koo yaakaar nit ki bu ajalam ñëwee yaa xam ajalu dundam la wala ajalu lu ko war a dal la wala ajalu lu teggiku ci moom la ak lu mën a xew ajal ga bu ñëwee ak lu mën a xew ajal ga bu ñëwee kenn mënu ci dara kon moo tax mu ne bu ngeen yaakaaree ni kenn dina lore wala bu ngeen yaakaaree ni man ngeen maa xoqatal ba ma ragal ay lor yuy tukke ci yéen wala muy tukke ci keneen wala man ngeen maa kromp ba ma yaakaar ni am na njariñ lu mën a tukke ci yéen jëm ci man xam ngeen ni seen xam weeboo ngeen xam ni seen yaakaar tas na ndax man yàlla rek laa yaakaar moom moom mooy ki may njariñ moom rek mooy ki may lor mu teg ci ni bu leen yaakaar ni nii ma nekkee gi fii wéet fii ci seen biir bu leen jàpp ne ab prisonnier la bu leen jàpp ne ab asir la prisonnier boo xam ni dafa dafa dafa dafa dafa désespéré amatul benn espoir yaakaaratul kenn ku koy dimbali bu leen yaakaar loolu am naa yàlla te dina ma dimbali am naak ndimbal mooy sama borom te dina ma ndimbali ndax mooy sama kilifa mooy sama lépp jox naa ko sama bopp xam naa li ma fi indi it xam naa li ban bi kañ laa fiy jóge mu dellu waxati leen képp kon bu ngeen yaakaaree ni lenn laa man lu dul jaamu yàlla wala ngeen yaakaar ni lenn laa lu dul liggéeykatub yonent bi bu boobaa juum ngeen man yàlla rekk laay jaamu yonent bi rek laay liggéeyal kon eh, li ñu naan li duuf ci nag wi xajul ci cin li euh, dañ may signaler ni juróomi minit a ci des daanaka jeex na eh, lañu ñu préparé woon ëpp na lii ndax comme ni ñu ko waxe woon ci njëlbeen gi rek sañ Touba géej la koo xam ne amul tefes euh, buñ ci doon wax fii ba suba it bis bu ne it am ku ñëw di ci wax it ci benn point bii rek muy taw du sëriñ Touba mënuloo koo jeexal eh, ndax euh, dundam boo nee da ngay nettali dund sëñ Touba. wax ay jaar-jaaram loola mooy tekki ni waxal lislaam yépp ndax moom lislaam la booy ne da ngay wax tawxiidu sëriñ Touba wéetalam yàlla jëlal téere tawxiid yi lañ ca bind lépp nga saña wax ni nii la meloon nii la doon wéetale yàlla ca anam goo xam ne nag anam nga gën a kawe eh, liggéeyal na sunu borom wéetal na sunu borom liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa ba màngal xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa xeeti màng yoo xam ni doo ko fekk fen moom rek liggéey woon ba mu ñëwee it mu añal ñëpp ba mu ñëwee mu añal yëpp ñëpp comme ni mu koy waxee ci eh, wala xat karam naa eh, rabbaytani rabbi fi l aadaai muhtariban xatta rujuci ila al awtaani aana waaye fa mu daanele mooy ijaal rujuci ila qawmi saadatana wal takfina yowma jamci lxalqi niiraana kon moom rek moo liggéey tarbiya ga mu koy defi gisuloo na mu na mu na na na na mu defee da damir ja damiru mufrad rabbaytani rabbi fi l aadaai muhtariban xatta rujuci ila al awtaani qad aana waaye ba añ jotee ijaal rujuci ila qawmi saadatana wal tag fi naa yow ma jamil xalqi niiraana moom rekk liggéey woon waaye ñépp la añal wax ji ala kulli xaal gudd na wa waaye ñu ngi ñaan yàlla rek li ñu fi wax mu doon luy njariñ ngeen jéggal ñu nag ndax ay soose la ñu dégguñu wolof dañuy jéem rek ñu ñaan yàlla yàlla def taw fii waaye ren wa baati nañ asalaamaaleykum wa rahmatullah ok jërëjëf Serigne Abdoul Ahad defe naa ñëpp seen xol sedd na am nañ ci sax lu kawee suñu njort xam naa xeeb nga ko ndax yéen a ji yéen jure ji waaye lépp mat na sëkk ndax moom tënkal nga ñu dunduk sëriñ bi njaal benn gën ma xam ne njaal benn nga ba ci mujjëm lépp ci boromam rek la nag ni nga ko waxee ndax lii nga doon andi ci ci muqaddamatul xidma muqaddamatul xidma ci xasaayit bu njëkk yi la bokk boobu dema ko ci géej kon loolu mooy wane ne sëñ bi moom ci noonu boobu nga waxat fi muy waxee ne lu la loxoom ku dul yàlla nga xam ne maa ci rum naa defe ko ci géej gi noonu yeba ko jiitu loolu da ko ca nag nga xam ne ci njaalbeenu dundam la ko ci taarif muy jamono yi muy woote yoonu murit wala bi mu ko wooteegul sax muy walastu axsha wala arju siwa maliki li annahu jalla yugnini wa yunjini kon kon li si day mel ne firi nga li taq Muntaqa di wax lu bari ne sëriñ bi biñ ko gisee ba niñ ko noppee gisee ci boroomam rek la nekk kon noo ngi sant bu baax kon defe naa waxtu wi dafa dafa xat lool nag jox sëriñ Xalil mu mu mu lu ñu ci mën a dolli rek mu dolli ko ci balaa tàkkusaan bi insha allah sëriñ Xalil Bàkki mu sëriñ Mustafa Absa wala wala sëñ Muxtaar xanaa kay bu noppi mën ngaa tëj nag de sëñ Xalil noppi waaw sëñ noppi rek mën ngaa kii jërëjëf sëñ Abdou Lahad asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci weeru ramadaan yi ñu nekk di nuyu mbooleem mbokki taalibe yi nakk ci jumaa ji ak ñi nekk ñiy dégg ci yeneen gox yi di yóbbante ab nuyoo ci kilifa ak bii muy Sëñ Muntaxaa ñu yóbbante ni ci sëriñ Koso mu jotal ñu ko di nuyu sëriñ Cheikh ak mbooleem waa académie bi yëpp di ndokkeel conférencier bi ci wax ju am solo ji mu mel ni kon daanaka li ci ëpp solo wax na ko xanaa dañuy toppaat ci li rek seet ci ay seetlu yoo xam ne xaj na yu am solo la ci biir wax ji wax na ne sëriñ bi wéetal na yàlla waaye maanaam itam wéetal yonent bi ci wane ne yonent bi rek moo yonent bi loolu dafa am benn saalum saalum boo xam ne dafa ñëw ci moom bi muy dem ci géej gi ne ko dama bëgg nga dénk ma mu ne ko ci dénkaane bu gàtt képp koo xam ne dëgmal nga lu dul yàlla bis dana ñëw nga xam ne yàlla rek mooy yàlla képp koo xam ne dëgmal nga yàlla it jaari jaarewoo ko ci yonente bi bis dana ñëw nga xam ne yonente bi rek mooy yonente bi loolu kon day mel ni tënk na li nga wax ci tàmbali bi ci teg gim teg yàlla fa mu ko war a teg ak it yonente bi alayhi salaatu wasalaam teg gim ko fi teg fi mu ko war a teg ci biir loolu itam wax nga ci tayaaraat yi fi jaar ak kenn ku nekk ba mu feeñee jamono ba mu feeñ nga xam ne xaj na loolu ñoom ittewoo woon nañ ko ak maanaam nit ñi nit ñi ni ñuy duggee ci ci bi ñu duggee ci lislaam kenn ku nekk bagage yi nga indaale ak gëm-gëm yi nga indaale nga xam ne yooyu dafa jeexital lool ci euh, wàllu tawhid loolu itam suñu seetloo ci murit gi loolu dafay mel ne dafay tàmbale feeñ lool kenn ku nekk ak saw gisiin maanaam ci ci ci sëñ bi ak ci ak ci doxaliinu yoon wi ak ci doxaliinu maanaam lislaam loolu seetlu dañ ko bu baax a baax te kenn ku nekk itam la nga la nga fa nga jógee wala la pas-pas ya nga yoroon loola day mel moo lay motivé ci gis-gis bi ngay am ci ci ci ci ci ci yoon wi te loolu nag ginnaaw sëñ bi rëdd na maanaam yoon wi fi mu tege ak fondation bi ak li ko laytaay kon kenn warul di waxati ne ni ma ni ma ni ma ko gisee waaye ni ko sëñ bi gisee nga war nga war a wax léegi nag ñu bari da nga dégg ñu ne ni ma ko ni ma ni ma ni ma ko gisee mooy nangam ak nangam waaye ginnaaw sëñ bi mooy moom yoon yi moo rëdd xàll ngir mi kon ni mu gisee loolu mooy gisin yu ñu war a gisee te gisin woowu de soppikuwul diirub li fi nekk ci àdduna ndax bi muy taalif Mawaahibul Xudóos mi ngay tudd léegi yàgg na lool booba booba taxawalagul yoon doy na leen ci yàggaay mooy sëñ Mamour Anta Sali jàngal na ko eh, ay doomam mooy rakki sëriñ bi tawhid ci ci ci Mawaahibul Quddus lañ ko jàng kon loolu lu yàgg la waaye gis yi ni yooyu nga xam ne moom la ci gis muy pas-pas yooyee ba ni muy eh, wuyjee boromam soppikuwut benn yoon loolu mu jàngale ci Mawaahibul Quddus ak tomb yi mu doon def ci njaareem amul benn wute ci nekk mooy kon li mu ñaanoon suñu boroom ne sabbit yaqiya fi bi qalbi a wajalin muy pas-pas boobu ci xolom daf caa sax diiru ak dundam yépp kon loo xam ne ci la nekk di ko dund euh, giirug dundam yaakaar naa loolu kon waras na ci bàyyi xel bu baax ci jàngataat ko xool nam ko fase woon ak nam ko jàppe woon ñu bañ cee wàcc ndax loolu diirub li fi nekk lépp muy loolu mu jàngale ci mooy lu xudus muy yàlla rek a yàlla ba boobu muy wuy ci ndar ci gouverneur bi tont yi mu doon tont amu ci lenn loo xam ne wuute na ak noonu ma ko jàngalee ci mooy lu xudus ak noonu ma ko gëmoon ci njëlbeen kon loolu di lu am solo loo xam ne ñu war nañ ko di ko jàngataat bu baax di ko bàyyi xel te xam ne euh, euh, pas-pas noonu duñ ko jigaani fer li ci sëriñ bi taalif doy nu sëkk li mu ci jàngale ak li mu ci leeral doy nu sëkk ni ma ko waxee benn benn benn naar mu di ma laaj ndax foofu yéen a ngi jàng tawxiid ma ne ko nun de suñ sëriñ li mu def ci tawxiid suñu ko dugaloon ci euh, oto mu kërëwe li mu taalif ci ay téere ci tawxiid suñu ko dugaloon ci oto mu kërëwe te loolu mooy li wér li nga wax ci euh, téere yi nga jot a tudd nii dafay feeñ waaye li nëpp ci téere yoo xam ne mooluñu ko kenn xamuñu ko kenn xamu ko yooyu mu ëpp kon loolu di lu am solo loo xam ne lu mat di bàyyi xel la xam ne daal ñu jàppe ne ñu baree bari jàpp ni euh, ñi woote ak tasawuf wala ñi ne ci tasawuf dañoo topp xaal yeeg ba ba ba jànguñu seen tawhid loolu ñu xam ne demewul noonu tawhid sëriñ bi daf ko jàngale ñi nga ko waxee léegi dund ko dundal ko itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci agronome mu mel ni suñu seetloo ci euh, jamono yu yàgg suñu Ahmad al-Badawi Ahmad al-Badawi soofi mag la woon mu ngi nekkoon Tanta ci Égypte dafa amoon mbooloo mu bari waaye ñi nga xam ne rek dañuy jàng euh, euh, xam-xamu zaayir xaw koo mel ni lu koy diingat ba jamono boobu sayxal sayxul asar bi nga xam ne moo nekk foofu à l'époque ñu di ko wax ibnu daqiq ibnu daqiq al ayit ibnu daqiq al ayit moo jiite woon asar defe naa moo jumul ñu def benn réunion ne moom daal comme mbooloo mi ñu ngi koy wuyu si affaire tasawuf mu daal war nañu xoolaat ba xam xaqiidaam nu mu demee daal ñu jël benn téere boo xam ne euh, téere bi mu ngi dudd ashajara ku ñuy wax Izz ibnu ibnu Abdou Salaam moo ko def ñu jox ko ku ñëw Abdul ne ko demal nga testé ko ci ba xam laaj ko ci ay masala ci téere bi ci tawhid la jëm ba xam moom tawhid itam daal euh, yi muy sóobu nit ñeeg yooyu ndax ndax sax tawhid itam lijjanti na ko ba mu wér laaj ko ci ay masala ba xam kooku jël téere bi def ko ci poosam duggu oto walla jamono boobu lu mën a dugg daal dem ci foofu dëkk ba tàntaan léegi bi mu ñëwee ba dugg ci kër gi ba dugg ci kees gi nekk di ko nuyu bi mu taxawee mu ne ko yow di dafa mel ni am na téere bu ne ci sa poos boo xam ne dafa am ay masala yoo ma ciy laaj si daa mel ni loolu lay nuru mu ne ko waaw mu daal di xam ne kon kii nitu yàlla la koo xam ne yàlla may na ko léegi euh, bi mu delluwaatee leeral ko ibnu daqiq al-Iid mu mel ni loolu sax dafa dafa ko jaaxal daal ba mu mu ne na ñëwal boppam pour xool ci ëllëg sa mu ñëw moom sayxul asar boobu ñëwal boppam bi mu ñëwee fekk sëñ bi ci xaal boobu mu daan nekk xaal boobu nga xam ne bi ko dikkalee day jékki-jékki rek mel ne lu lu fi nekkul daal maanaam ne tegg ab diggante du wax du yëngutu loolu it moo mel ne su ko masaan dikkal moom dafa koy wàllaale taalibe yi ne ci wetam ñoom ñëpp daal ñu mel ni dañoo concentré wu ne tekk rek waaye ji mu ñëw fekk leen ci ci ci melokaan woowu mu ne ci xelam waaw man de dox laa fekk fii dof bu ay dof wër daal moom suñu Ahmad yi moom mu ne xinet ne ko majaa niinun walakin sirru jununihim garibun ala ataabihi bi aqulu yasbiku la su ma dee dox de li ma doxloo lu gëlëm loo xel yi li bëgg a wax rek mooy <clears throat> tawxiid ci boppam nitu yàlla ki muy àgg ci foofu yàlla loolu yàlla may fekk na wéetal bu mu yàlla moo ko àggal ci loolu xam ne kon day mel ni daal euh, lu mat di bàyyi xel la ci ñu bari ni ñu jàppee ne maanaam nit yi euh, tasawuf yi dañoo ginnaawal tas euh, xaqida wala dañ ko xamul wala lañ ko yu mel noonu moo tax li nga ci jàngat mii ci ni ko sëñ bi jàngalee ak fi mu ci jaarale euh, dongo yi loolu di lu am solo loo xam ne lu mat di bàyyi xel la ak di gën a jàngataat nag bu baax loolu muy tawxiitu sëriñ bi ak ak ni mu ko jàngalee mu dëppoo ak yi ni nga ko waxee loolu lu am solo loo xam ne lu mat di bàyyi xel la ci ñi nga xam ne ñooy bind ak ñi nga xam ne ñooy jàngat euh, mbindum sëriñ bi ndax day mel ne loolu waxtaan yi yàgg na fee am waaye euh, wàll googu muy tawxiit day mel ne daanaka at mi lañ ko tàmbalee di ko bàyyi xel te sëñ bi lu mu taalif muy tasawut si xaar jawhar nafis nax ju euh, kii tuddati tasawut subaan téere boo xam ne ci fiq la koy def balaa tàmbalee wax ci yu meloona tawxiid la ci jiital kon loolu lu mu fonk la lu mu fulal la loo xam ne lu mat di bàyyi xel la comme xam naa waxtu yi dafa kii wa axiru daxawaana alhamdulilah asalaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh fataahu wahabu yaa rasaaqu yaa maliki lifta wahabliya wasukuni kuni ana dayqi azim ajilan bil bishri mamadin xata uqima li diinillahi arkana asiru joxay di tuuba waxmini waqini adal wara وتجب لي سما إسكانا لك السماء والأراضي والهواء بلا مشارك ليرو مشكوب أنا أجيب وسلم وسلم أسنادي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته docteur euh, ci Abdul Ahad Sani ñu sant bu baax a baax ci ci waxtaan bi am na maanaam lool xam naa ne nag di bu déwénee nag ci nga defal ñu ci fiqul maliki almasabul maliki déglu naa ko ko ci télé bi am na maanaam lool lool lool sax lool amit xam naa sax bind ko it donte ne ab téere lay doon su bu ndaw am na ci maanaa xamante ne ñu mbool ko semence bi mën cee jot waxtaan wi am na solo lool xam naa rek ay orientation tuuti rek ci xale yi yi diglu xam nga eh, waxtaan wi mu ngi jëm ci tawxiidul irfaani yi maanaam léegi wala tawxiid asuluki yi sëñ Tuubaa nu nu mu dundee tawxiid yaakaar naa foofu it eh, lu am solo mooy ne ilmul kalaam yufiidul ilmu al ilmu amaan atasawuf aw tawxidu suluki fa yu fii du almaarifa bokku ñu ilmul kalaam moom ay borom xam-xam yuy daggasante lay doon wala boog doo xam xamul julit di daggasante ak ku nekkul julit ngir bëgg koo woo ca lam gëm loolu mooy ci ilmul kalaam waaye ci ci ci mawahibul xudus mën nga koo jàng am xam-xam rek xam-xamu mën a daggasante ak sa morom wala keneen waaye nag doo am maarifa nag xam yàlla déedéet xam yàlla moom da da dem ca maanaa léegi ca masalik masalik ku jinaan nga xam ne kat li ngay gëm da da nga koy jëfee waaw xam ne da ne da ngay dund pas-pas bi loolu yi ci xam naa ci ci xale yi xam naa nag masalik moom ni nga xamante ne ni la ñu jàngalee xam-xam yi mel ne ne des na ndax ku ne xam ne ni ma wax ni xurus suñu doom ma naan sax sax day day mel ne sax yaakaar naa fay dul xam ne mu ko nii moo gën gën a ci wane sax gi gisuñu sëñ Tuubaa ci tax it donte ne amoon na laaj bu bu bu ma laajoon Seexuna Mbakke ci Abdul Wadud amoon na raw doraahin at moo xam ne dañoo sëñ sëñ ki ñang naati sëñ Afia Ñaŋ moo moo defoo ci ci waxtaan waaye ne si diwaan kat taw si doon kii wala yooyu xam naa ma laaj seen seexu naa ca ba ne ne ko ko ko waaw seexu naa alaarif billaahi ndax mën naa sukkandikoo parce que pasam ci kudul maasum xam nga maanaam léegi al achan yi du maasum maanaam du maasum dégg sax ci biir ngir mi almaturidi yu nag ñoom danañu am ay. retour yu am ci seen biir man maanaam kon léegi seeni wax du maxsum kon aarif billaahi moom naka lay sukkandikoo parce ci kudur maxsum loolu loolu su àll man a ji la maanaam gëstukat yi sax ci laa koy ci bàyyee si wax naa ba ba ko waxee mu ah loolu de dëkk maan la mu ne ko ah, yaakaar naa xanaa daal xanaa daal ndax loolu ci war naa mën a nekk xam nga xam nga man damay bañ ñuy nettali taarix di wéy xam-xam dañ ko war a intaaj maanaam dañoo war a juddu lu xam-xam man bëgguma taarix nettali di wéy ba euh, maanaam al al al ilmul ilaahi yi ba ko yi taarif ba noppi man damaa gis ne taarif ba baaxut baaxut de ma xam ne xam ne lu ko mag ñi wax wax waxit maanaam da maanaam amoon na lu leen réer ndax léegi ilmul kalaam mi ngi sukkandiku ci science ah ci jamono ju ne science fa mu toll fa la borom xam-xam yi war toll al arab ni ko eh, colobal kalam yi taxrifoon bokkut booba ca science seen jamono mën naa baax waaye léegi science nangootu ko léegi jotaay yu mel nii yëngal xelu gone yu ndaw yi ñu ñu ñu ñu bañ a sañ a tari daal tari man ku ku ku bañ tari laa eh, sëñ Abdou Lahad li mu doon noonu nga xam ne léegi sëñ Tuubaa at tawxiid tatbiqi li li mu doon taw tawxiid xamante ne ci man ma tuddi ko tawxiid du leen fay nii loolu loolu lu motoon a jéem bind la si si Abdul Ahad xare yow léegi léegi li nga doon ci waxtaane fii bañ ci ci ci wax gi noonu waaye bind ko ab téere bu ndaw ñu mool ko xale yi man koo gis xam ne kat léegi tawxiid du ay wax rek waaye ak dund la mu mu feeñ ci sa xol ci sa cër yi su yu si leen bu caxu ilallaahi wa huwa muslim

ku ku ne ne xam ne ne loolu kon dana aaj kon delluwaat ca démb ja te usul yi du ma du may alkitaabu wa sunna kon Sëñ Tuubaa ci ci boppam yaakaar naa léegi kenn mënu koo jàngat noonu rek ne ab agent yi bu daal di jeex déedéet da ngay delluwaat ci ci ci moom daal ba xam maanaam léegi jéem a code yi xanaa fi toll Sëñ Tuubaa mën naa mën naa si si reconnaître eh, yi keneen ngir al muhafaza al muhafaza ndax léegi soo soo dikkee ne dara baaxut kenn dootul di. soo dikkee ne dara baaxut kenn dul diglu faaw nga ne nga gaa yi yi fi kat baax na mbu mi mbu mi ñu ngi ko jógee Makka ak Madina diri ko ba Sénégal kon fagg na nit ñi dañ la nangu loolo ñu ne kon dañ ko gub danañ ko nangu suñ ko gubbee surut nañ ko fóot lépp dañ ko nangu waaye ci waaye soo soo dàqoon lépp kenn kenn du la nangul asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu maa ngi sant si bu baax a baax nag. sant bu baax de. jërë jëf xam naa kon ñu jox euh, sëñ Thierno mu ñaan ah, xam naa daanaka mënatu ah, ok asalaamaaleykum waaw ah, jërëjëf jërëjëf sëñ mi mujj euh, jël kàddu jërëjëf sëriñ Khalil mi nga xam ne moo ko jiitu woon tuuti waaye jërëjëf sëriñ Abdoulahad Sani ñu ngi leen di sant bu baax ci taxawaay bu rafet bi ak euh, kàddu yu rafet yi ak njàngale bi daanaka mën nañoo jàpp ne lii am njàngale la euh, ndax koo xam ne kenn ku la nga ca jàpp ak la nga ca takk mën na laa jëriñ lu bare bare bare bari sëñ Abdou Lahad mel na ne wax na ci wuutey xalaati ahlu ahlu tawhid wax na ak ay wuute yu bari ci tawhid ci ni ko mu'tazila yi jàppe ak ni ko jabra yi jàppe waaye wax na sëñ bi ci boppam ni mu ko jàppe muy tawxid bu bi gën a mat moom la sëñ bi jàpp leeral na ko te mooy ñi nga xam ne xëy na dañoo gëm ne suñ boroom ci xam-xamu doomu aadama yi wala jëfi doomu adama yi am na ci loo xam ne lijjantiwu ko yoonam nekku ca am ñoo xam ne dañuy dem ba defe ne suñ boroom buñ dee siit maanaam yaramam am na ñoom nu ñu ko mën a jàppe nu ñu ko mën a xoole wala aw tooginam wala ay wax waxinam loolu lépp ay njuumte la waaye sëriñ bi moom ni mu jàppe tawhid te leeral ko ci ponk yooyu ci boo ko dee seet ci nafsiya ci salbiya ci uluhiya ci wahdaniya yooyu yëpp ñu ko seetee daañu xam ne sëriñ bi tegal nañu tawhid bu leer leer bu matamat boo xam ne dara manqué wu ci te suñ boroom noonu rek la ko bëggee waaye li ci yéeme mooy tawhid yi ñuy sukkandikoo nii ci ko askan ci sëriñ bi moo xam sawdu saar la moo xam ci jawhar moo moo xam ci muwaahibul qudus la moo xam ci tawxiid bii mu njëlbeenale noor maanaam saada muqaddimatul xidma la yooyu tawxiid yëpp boo ko seet li ci gën a yéeme mooy ci ak njëlbeenam la ci almi njëlbeenam doxam la ni ko sëñ ay sëñ Abdou sëñ Abo junje yi ci gën a bari booba demagul ci géej te booba foofu la taw itam nekk te moom du jiitu muy dem ci géej gi dafa jàpp ne léppam ab tàmbali la dem na ba xasida yi nga xam ne moom la ci bindoon sax jàpp ne suñu borom nanguwu ko ndax wuute gu mu wuute ak xasida yi nga xam ne moom la defee ci géej gi ak wuute gi nga xam ne moom la defee ci bi mu dellusee kon loolu ba tey ci kiimaani sëriñ bi la bokk ndax foofee mu toll woon tamit tawxiid boo xam ne kenn mënu caa dina dara te kenn mënut a jàpp ne dara mën na ca yokku te yàlla dogal jamono yooyu muy jamono yoo xam ne booba ab tàmbali la jàppe boppam te te muy dëgg ab tàmbali la ndax ci njëlbeenu ab door a tàmbalee liggéeyal rasulullah sallallahu alayhi wasallam ni mu koy waxee la kon loolu dañ ci delluwaat di ci yéemaat sëriñ bi bu baax waaye nag di jëlaat itam tawxid bi noonu ma ko jàppee it di ko jéem a def ci sunu bopp sunu kem kàttan ba bu ñu amul lam ca am itam ñu am ca loo xam ne danañ ca mën a jàpp danañ ci mën a sukkandiku ba def sunuy jaamu la nga xam ne noonu la waree ak fañ ci war a teg suñu borom ko wa taala kon waxtaan wi njàngale la mu am solo moo xam ne ku ko topp mën nga caa amee lu amal njariñ kon yàlla noonu yàlla may dégg ak topp li nga xam ne noonu la waree yàlla may nu itam ñu fekkee waat ko ay yoon yoon defaat ko ay yoon yoon te yoon wu ko gën a def rek mu gënal nu yoon wi nga xam ne noonu lañu ko defee ñu ngi sant ñëpp ñoom ñu doon moom mi doon def conférence bi ak ñoom ñi nga xam ne wax nañ gannaawam ñëpp ak ñi ko teewe ak kilifa yi nga xam ne teewe nañ ko rafetal jataay bi bu baax a baax ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax leen gërëm di ñaan yàlla nangu koor yi nangu taxawaayu jataay bii mu def ko ci jataay yi gën a jataay yu tiyaabo def ko jataay yu yërmaane def ko jataay yu xewal ci barkeb sëriñ bi ñu ngi sant ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu tàllal loxo yi sëñ ñaan